Bismillahirrahmanirrahim. wa rahim ons billahi mina seytaani rajim wala hawla wala quwwata illa billahi aliyyil azim ngi len di nuyu man la ros Ndiaye dekk yof nga paru di jaayee fi ci layen appel bi tay moo fi dajé moo fi dajalo ñun ñepp tay ñu ñëw lay si ngërëm mbam bay la mi borom appel bi di ñaan yalla yalla defal ñu jamm defal ko mboolem jullit yokk xewali ak sutura sek taranga ji di ñoo di o ñep nak di wo waa yof gépp maa ngi wo sama mbokk jigen yëpp ñep nañ genn slide bi ñëw taaral bérébëb seydina limaamul maxdu bi nga xamanteni mo waral appel bi mo waral appel bi ma ngi ñaan sama mbokk jigen ñep ñu ñëw génn góor jigéen mag ndaw kep ko xamanteni jappani nga nga ñew jappali ñu ci liggey bi ku ngërëb ma am bay lay bu tedd bi alayhi salatu wassalam man nak dama mën la wax ku nekk xamna li ci xol yi ñun ñep ñun ñëpp nekk xam na lu si xol yi waaye dañuy ñaan yàlla yàlla defal ñu jàmm si barkeb Seydina Limaamul Mahdi alayhi salaatu wasalaam ñu fekke ka tal ka gan ñëpp ñëw si jàmm salaam dellu si jàmm salaam si barkeb maam Baye Laay. bismillaahi rahmaani ginnaaw bi ñu santee yàlla julli ci yonent bi Seydina Limaamu alayhi salaatu wasalaam ñu ngi ñaanal suñu xalifa Chérif Abdoulaye yàlla na yàlla yeesal ay leeram suñu xalifa Duudu Maxtaar yàlla na yàlla yàggal ko suñu kanam. waaw bu ngeen gisee nag suñu teewaay fii mooy dañoo ñëw en tant que membre vision 129 di préparer set setal chaque année ñuy ñëw fii préparer wu ku ñu gis rek xam ne appel la ngi waaj a ñëw ñuy ñëw bere préparer defar béréb bi lay ba mu baax duñ ko yemale sax si béréb bi dinañ génn laayeen yëpp yof yëpp defar nettoyer ba mu baax ngir préparer loolu nga xamante ne nii mooy appelu Seydina Limaamu alayhi salaatu wa salaam ànd ceeg vision 129. président bi di Iba Faye bi doomi Baye Seydi Thiaw ànd seeg président organisation di Pape Mbaye doomi Baye Raan caw moo waral ñu ñëw fii jàpp si bés bi di lay suñ paree génn comme ni ma ko waxee rek lay defar laayeen ba bu baax pour waajal appelu Seydina Limaamu alayhi salaatu wa salaam bi di wax ne bépp jigéen boo xamante ne nii wala bépp jullit boo xamante ne nii rek seetaan nga li ñu ngi lay invité fii ñu ngi fii ba le deux incha allah pareeguñu ngeen jàppale ñu ñu préparé waajal appelu Seydina Limaamu alayhi salaatu wa di ñaan yàlla ñu commencé ak bisimilahi rahmaani rahim ñaan yàlla àggali ak alhamdulilahi rabil alamin di ñaanal ñëpp di ziyaare ñëpp di baalu ñëpp ak ah? déedéet liggéey bi du jafe ndax euh, ku jóg rek pour liggéeyal yàlla liggéeyal Seydina Limaamu liggéey bi du jafe te fii nekk na place boo xamante ne nii macha allah du suuf su salte soo xam ne dañ fee mën a yàgg suuf su set la wax dëgg yàlla suuf su sell la yére boo sol boo ñëwee man nga fee toog moo tax liggéey bi du jafe dañuy lay nii rek xanaa taara laat béréb bi rek ba mu gën a rafet ndax bëgguñu nga fiy dox sax di for banta loolu rek moo war a laat loolu mais fii ku ko xool xam ne moom wax dëgg yàlla béréb bu sell la béréb bu set la béréb bu jaamukaayu yàlla la yére boo sol mën nga fee toog du taas du poussière waaw incha allah ñun bii ba mu fi daree liggéeyax léegi ëpp na juróom at si ren booba tey nag maa ngi ñëw di siyaar fi di barkeelu si bi at mu jot ñu ñëw fii di siyaar di barkeelu si bi di sanga-sanga yi yonent bi yàlla bu tedd bi tëdd fii sallallahu alayhi ñu ngi ñaan moom yàlla àggali ñu bi si bisimilahi rahmaani rabbi alamin fii nag ku fi ñëw képp koo xam ne kii da nga fee ñëw di daan sa doole. a yàlla may nu kantan goo xam ne ngi ñu ngi koy def ñu ngi koy ñaan yàlla yàlla may nu ko si barke maam li maam Maadi sallallahu alayhi wa sallam man Adama Sarr laa tudd dëkk Yoff laa yéen gi waaw at mu jot nag maa ngi koy man yàlla ak may may wér gu yaram goo xam ne gii maa ngi ñëw fii si bayaayam bi di ko lay di ko defar ba mu sell mang maa ngi koy ñaanal képp koo xam ne kii nag bëgg ngaa ñëw fii bés ni ki tey bii si commencement bii maa ngi la koy ñaan an mu như boo mënee ñëw na nga ñëw waaw ñun ñi toog lại, ñëpp ñoo ñoo yor liggéeyam lay jàmmalaay gi buñ koy yoree ba tey yàgg na te kenn ma susee te da kenn ma những feebar ñu ngi koy những yàlla nag ni ñu koy commencé nii ñu continuer ko yàlla may ñu ko ñu fekk ko ay déwén di déwén ci barke Baye Laay Seydi. waaw ah, auzu billaahi mina laa xawla wala xuwwata illaa billaahi al gannaaw bi ñu sante yàlla julli si Seydina Limaamul Mahdi alayhi salaam di ñaan yàlla fayal nu ko ah, maa ngi tudd Ngoy Sarr dëkk APEXI 1 ah, depuis bi ma ràññeewee ba léegi ba ba ni ma amee 30 ans tabarkalla dañuy ñëw fii chaque année dañuy ñëw fii ànd ak ax baay Ibalaay euh, ñoom Pape Mbaye euh, ñoom ñëpp waa vision 129 ñoom Mame ci ànd ko ñoom liggéey te yàlla tax te Seydina Limaamu loo ko liggéeyal rek sa bopp nga ko defal parce que dalay fay ba wis la moom ku ko lebal benn mu fay la fukk di ñaan yàlla fayal na ko alayhi salaam àdduna danoo réer a mbir ki nuy wër muy xayru xalxilaay mu ngi nii fii nii lay nii ci ruumu aljana yi la bokk si dëru aljana yi moo tax lépp luñ fi def rek dañuy da ngay yéene ànd ak yéene man année année yi passé si entre bi ne damaa lay lay ba daj si kaamil kaamil boobu si laay jàngee waaw loo fi def rek euh, sa yokkute la sa njariñ la parce que man su ma gisee nit yi di romb fii di romb fii euh, lay bi bu jotee doo gis kenn ku ñëw barkeelu dama naan ñii danoo réer a mbir parce que boo xamoon fii di nga ñëw barkeelu ñu fii luñ fi lay lay lay duñ masa feebar dun masa a sonn ndax euh, euh, maama tax mais nu ngi sant yàlla di ñaanal Baye Ibalaay lépp lu nu yéene si seen diine maam ji yàlla matal ko yàlla jàppale leen si yàlla lafal leen cat ci barki Seydina Limaamu alayhi salaam appel bi nu jëm yàlla na borom bi indi xéewal yëpp kenn bañ a manqué di ñaanal sunu sang yu tedd yi di ñaanal imam Makhtar sunu xalif général Mamadou Makhtar laay di ko ñaanal yàlla yàggal ko fi may ko wér ak wér le alasaan yan bi yàlla na woyof yàlla na ko yàlla lafal cat di ñaanal sunu soppe Serigne Bass yàlla yàlla woyofal yan bi Pape Mamadou euh, Lamine Pape Mame Diine ñoom ñëpp ñu ngi leen di ñaanal papa yàlla na ko yàlla may wer ci barke Baye Laye ñu ngi ñaanal ñëpp di kontaan si ñëpp di ñaanal Seydina Issa Laye Samb sunu maire bi yàlla na ko yàlla lafal cat Alassane lépp lu muy yéene ci dëkku maamam bi yàlla na ko si yàlla jàppale yàlla bu mu sa gis lu mu ragal yàlla na yan bi woyof ci barke Baye Laye yeewi na ñëpp tabarkàlla macha allah waaw jërëjëf Alassane kontaan na rafetlu leen seen liggéey Sodaan euh, TV yéen ñëpp rafetlu leen liggéey bi tabaarkàlla macha allah lépp lu nu bëgg a seetaan si diina ji yéen a ngi koy yombalal ba bu ma woowee sama xarit bi ne États-Unis dana maan man maa ngi ci Sodaan maa ngi koy gis en direct alhamdulilah yàlla doon télé yàlla doon télé ci barke Baye Laye kontaan nañu Alassane yàlla leen yàlla fay ci barke Baye Laye jërëjëf. auzu billahi mina seytaani rajim bismillahi rahmaani rahim laa hawla wala quwwata illa billahi al-aliyyil azim ginnaaw bi ñu sante yàlla julli si sangub sang yi borom ñaari wàccuwaay Seydina Limaamul Mahdi Muntasar alayhi salaatu wasalaam di ñaan yàlla yàggal fi lool xalifa bi Doudou Makhtar mu Seydina Madione ak mbooleem njaboot ak maam Baye Laye gi nekk si ginnaam te suñu maam imam Bachir mu maam Babacar ji tere ah ñu ngi sant yàlla bu baax bi mu ñu jaglelee ñu teewaat fii nii si jàmmalaay si set setal ali ñuy dëgmal at bu nek pour préparer suñu appel wote bobu nga xamne ne Seydina Limaam moo taxoon fii ne bo da yalla ya ma sharal insi wal jinni inni rasulullah ilaykum ñu kay magal at bu nek ren ji nak mu tombeex 142e appel ñu kay préparer ni gis ngeen fi xalé ak gaay yep ñu ngi fi di lay appel bi nak ñu ngi ñaan yalla tijji ñu su buntu xewal yep wala ñu may ñu xaaliss bu bari bari sax bu lew bu ñu mëna suñuy gan voilà gan yi ñëw ñu appel si jàmm mu neex si jàmm après ñu ñëpp ñibbiwaat si barka Baay Laay te ñaan yàlla teewe kay at yu bari bari bari jërë ngeen jëf